d'abord damay sant yàlla mi ñu may premier match bi ñu gagné ko parce que dafa important woon ce match bu important la bi ci des mooy may féliciter di encourager l'équipe du Duc di féliciter suma équipe ville de Dakar commençant par le président Yadma a tout son bureau de la ville de Dakar di féliciter aussi mon encadrement technique la direction technique commençant par Moustapha Gaye de la ville de Dakar ak tous les entraîneurs qui travaillent autour et technique jigéen ñi ma ne leen bravo parce que match la boo xam ne mënul yomb c'est ñu jouer équipe boo xam ne ci équipe yi gën a baax ci Sénégal la bokk donc il faut ñu xeex jouer défendre am patience pour mën a mën a mën a espérer gagner parce que c'est pas évident du lu lu yomb donc li ma ci mën a wax daal mooy def nañu pas bu important mais defaguñu dara parce que gagné guñu dara de match bi di ñëw mooy gën a metti ñu gën a góorgóorlu gën a nekk en équipe liggéey xam ne que ne bu mag la ñu am en face match bu metti la ñuy am parce que dara gagné guñ ko pour préparer match bi di ñëw ñu lucide xam ne que dara amagul dara xewagul maintenant nag sant yàlla ci premier match bi ñu gagné ko parce que objectif bi du gagné premier match donc foog ñu continuer liggéey corriger aussi. li ma mën a wax daal mooy respect au duc équipe bu mag la bu mën a gagné lépp mais je pense li ma ci am solo man mooy man li ma war a préparer woo pour pour pour pour ñaan yàlla may ma ndam donc équipe la boo xam ne am nañu potentiel am nañu collectif li am solo mooy ñu respecter leen continuer liggéey parce que dafa eggaguñu ci dara. donc lii benn pas la euh, du équipe bu ñu war a respecter la encore il faut le dire dañ koy wax parce que équipe bu mag la am na de bonnes choses mais li ma ci xam daal mooy du équipe bu mag la ñu dañ koy préparer parce que gagné guñu woon